leen di gërëm di leen sant donc si tey jii ndax tay moom dañu ne woon dañuy woote pour war a mun a wax li nga xam ne ne jot nañ ko liggéey parce que am na diir bi ñu commencé ba tey di wax ci wàllu aide bi nga xam ne mooy aide alimentaire bi état bi teg jagleel ko si communes yi communes yi jagleel ko ñi nga xam ne que ñoom ñooy ay population donc tey jii ñu ne woon baax na ñu woote pour war a mun a waxtaan wax nit ñi li nga xam ne jot nañ ko def donc fii njëkk na pour que si commune bi ñu xam li ñu liggéey njëkk na tamit pour que ñi nga xam ne ne ñoo ñu sas liggéey bi commencé par le sous préfecture bi ak ñi nga xam ne ne ñooy état bi ñu xam ko donc lii comité communal bi la mooy mi nga xam ne moom nañu mettre en place pour def liggéey bi donc comité communal boobu nag euh, le maire Barthélémy Diaz bi nga xam ne ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que daf ñu woo ne daf ñu ko sas jox ñu ko pour ñu liggéeyal ko ko parce que yaakaaram ci ñun la nekk pour ñu war ko ko mën a liggéeyal ba mu sell tegal ko ko te defe naa loolu nañu jot a def nii liguey nañu li nga xam ne communauté bi nga xam composition bi yépp ñi ngi ni muy délégué de quartier yi muy ñi nga xam ne nekk ay euh, député nañu ñi nga xam ne nekk tamit ay maire nañu ay conseillers municipaux ñi nga xam ne ay jigen ñi nga xam dañu taxaw ci biir quartier yi nek fa ak ñi nga xam ne conseil de la jeunesse la ak vérificateur ak ñeneen ak ñeneen ASC yi ñepp dal japp nañ ci liguey bi parce que tamit biñ ñu ko waxee sous comité yépp yi ñu monté sous comité yi ku ci nek def nga li nga xam ne nañ la wax pour nga mun ko def danga dem jël ñi nga xam ne sax ñoo dëkk si sa biir quartier mooy maanaam ASC yi muy maanaam bàjjenu gox yi muy maanaam jigéen ñi muy maanaam même am na ñoo xam ne gis naa ci ay syndicat donc ñu société civile nous sommes parce que ñun tamit forum civil nous sommes ñëw na na ak donc ñu que lépp dañ ko pour léral pour wone ne que li nga nous dañ ko pour ménager, Inshallah day dem ci ménager té nous ma ngi sant di nous ñëpp ñi nga xamné ñoo ak ñun ci comité communal bi parce que liggéey bu sommes la yombul ndax buñ la am bu ñu la nee nag tànnal nag te war nga xam ñi nga xam ne war nga leen tànn war nga teg lépp ci yoon te loolu la ñoom ñi ñëpp def muy fukki comité suu comité yi ñu amoon ñu liggéey ko ñu teg ko firndeel ne que lii ñu liggéey suñu liggéey la teg ko si yoon donc loolu nekk na liggéey boo xam ne maa ngi leen ciy rafetlu gis nañ si nag ay gàllankoor parce que gàllankoor yi nekk na ci wàllu li ñu naan RNU bi mooy registre national unique mooy bi nga xam ne moo tënk bourse familiale waaye tënk na tamit ñi nga xam ne ne ñoo am carte égalité de chance mooy personne vivant avec un handicap ñi nga xam ne ne tamit xëy na seen néew di doole moo taxoon ñu dugal leen fa donc loolu biñ ko seendee daal gis nañu ñoo xam ne ne xëy na ñaar ak ñetti yoon bind nañ leen ci am na ñoo xam ne ne gis nañu juróom benn nit ci benn kër mu am ko donc te am na fi benn kër goo xam ne mi ngi janoo te amul donc loolu yëpp corrigé nañ ko defar ko donc ba nga xam ne ne daal stabiliser nañu mooy maanaam tey kii nga xam ne ne que moo taxu moo yore muy développement communautaire ñoo yore doon liggéey ci bourse familiale yi donc ñoom tey ñun suñu liste bu ñu ko jëlee xam nañ ne que liste bi liggéey nañ ko permetre na leen tey ñu war ci mën a sukkandiku pour defaraat liste parce que je crois que fii état daf ci war a euh, sukkandiku pour wara a djubanti wat parce que liguey bu rafet la amone mu don politique chef de l'État waye nak nagn ko doxale mo teguwul ci yoon. nagn ko def tamit li nga xamné né moy mooy ci ménage parce que am nañ fa euh manam 2130 yo xamné ne que ay ménage yi ñu wara a la donc ménage yooyu tamit tànn nañ len wax deug yalla ñi ñoo leen tànn muy sun comité yi nga xamné ñoo composé comité bi donc defar ko defar bu rafet liguey ko liguey bu rafet wax deug yalla bañu djébal jébbal euh, ci sous-préfecture les lo xamné nek rapport le teunk la liñ fi yëngatu yëpp bañu commencé ak légui def nañ ko déposer ko ci sous-préfecture lolu dal pour clarté transparence té suba ñu xamné ne commune de mermon Sacré-Cœur limu fi liggéey ngi fi téggé mën nga ko lamb mën nga ko daj mën nga ci sukkandiku pour wara mëna def lénen honorable député Juliette Zenga donc euh, mon député là Tibir commune bi ak tamit euh, honorable Lucie Cissé de faire vous donc nous sommes ici, fi ci euh, madame le maire Amina Diène donc nous sommes ici. Nous nga ici avec le coordonnateur délégué de quartier yi Ablaye Ndiaye Nous mi ngi ngi tamit coordonnateur distribution bi est paroisse bi

mais sas la tamit bi nga xamné ne que maire commune bi daf ñu ko lon pour ñu war ko mëna a def sortil ko et je crois que tay satisfaction la biñ ko fi défé xejna tay tey suñu liggéey dem na ba ci biir ni rek mu am dara lo xamné ni ñul na ci parce que ba tay ci suba suñu secrétaire administratif bi nga xamné ne ne moo ci commune bi si si commune euh, comité communal bi mom mom tay ji la ko yàlla jël donc ak euh, doomu ki nga xamné moy coordinateur euh, distribution bi muy délégué de quartier bi coordinateur de délégué de quartier moom tamit donc muy ñaari tiis yo xamné ne dal dañu ni lu ñuy métti ndax kenn ki légui ni nañuy def de corps pour mu mëna dem Saint-Louis muy El Diop nek en même temps secrétaire élu au niveau de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur parce que conseiller la fa won comme ñun ñi ñep conseil municipal en tout cas di gërëm ñep di sant ñep parce que liggéey bu métti la won waaye nak euh, teg nañ ko ci yoon doxal nañ ko di sant yalla rek